asalaamaaleykum mbokki jullit ci mbokki Sénégal ñu ngi doon yëgal leen xew-xew bu mag di bésu diine muy ziar bu bogal ñu jàpp ko samedi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février 2024 ñu ngi ko yëgal mbokki jullit yépp képp ku wax ashadu an laa ilaha illallah jiital ci nag xalif yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal njaboot suñu maam Cheikh Omar Foutiou Tall Thierno Bachir Tall Serigne Babacar Sy Mansour ca Tiwaawan Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides baay bu Mouhamed Kunta ca Njaasaan waa Kaolack sëriñ Cheikh Ahmed Maay ñas ak sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane ñas sëriñ Mamadou Makhtar Laay xalif général des Layènes ak mboole sem xalif yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci biir Sénégal programme ba nii lañ ko tëralee ci alxames bi incha allah dinañu dalal gan yi su ko defee nag bu ñu xëyee ci àjjuma ji daañu wàcc ay kaamil yu bëri ñaanal Sénégal ñaanal kilifa yi yàlla bàyyi leen suñu kanam waaye tamit ñaanal ñi nga xam ne yàlla def nañu jiitu ji fa ñuy jullee juma xewlu suñ ci noppee waajal li nga xam ne mooy xadaratu juma dem nag ci kër yi dallu samedi ñu amal cérémonie officielle à partir de 15 heures jublu nag ci guddi gi nga xam ne mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam à partir de 22 heures kon mbokk jullit yi bés baa ngi noonu muy ziar bu bogal di ko yëgal nag son excellence le président de la république ak soxnaam soxna Marième Faye Sall premier ministre ak mboole sem ministre yi nekk ci gouvernement bu Sénégal di ko yëgal président bu assemblée nationale ak mboole sem député yi waaye tamit képp koo xam ne autorité nga nekk ci li wër bogal di ci sàkku sa teewaay samedi le 17 lay doon ci weeru février 2024 muy ziar bu bogal ñuy ñaan képp koo xam ne ñëw nga ci ziar bi aajo boo ànd yàlla na la ko suñu borom fajal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu